tey ñu ngi dalal euh, Thierno Lo PCA Sen'Ter nekkoon ministre jiite itam parti bi di APD Alliance pour la paix et le développement monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. Fatou maa ngi lay fay di gërëm. alors monsieur le ministre euh, Sénégal mi ngi dund bu baax deuxième vague bu euh, coronavirus mbas mi nga xam ne moo dal sunu kaw léegi mu am at alors moomu le mbas nag fi mu ne dafa gën a doy waar cas yi di gën a bëri bakkan yi bëri aussi di rot bi nga doon yaakaar nga couvre-feu état d'urgence bi nga xam ne euh, teg nañ ko fi monsieur le président de la république jël ko dogal. man li may njëkk a wax daal mooy euh, xam ne mbas mi bi mu ñu dalee. président de la république ak gouvernement ak sunu force de sécurité ak suñu force santé yi ak population yi ñoom ñëpp àndandoo woon pour àndandoo pour xeel xool mbas mi naka lañ koy xeexe bi ñu ko defee itam yàlla suñ borom dimbali nañu ci parce que suñu kilifa diine yi kilifa aada yi force politique yi ak président la république ak guvernement am ñëpp dañu taxaw def fas ci mbas mi ku si nekk def ca la nga man bañ ko defee itam am na loo xam ne lu fondamental la ci biir waxtaan nañ ko ciy boole te gën cee góor góorlu mooy di nga suñu xasaayit yu bari yi gars yi di jàng ci réew mii ak arxuraan yi nga xam ne bi ñu ngi koy wàcc fii ak ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy def nañu xam ne ci arme bi tax Sénégal jël jël jëloon position bi ak mucc li mu muccoon ci wàgg bi loolu ci la bokk yàlla nag bu la defalee dara ca xàmmee woo ko da nga dem ba loolee nga perte ko parce que Sénégal ay ñiy nekk ci santé bi dàq ñu fee jàng ëpp ñu fi ay moyen bu nu te gënuñu fee discipliné aussi bu nu demee kon ba jëloon ay deuxième ak affaire yooyu nañ xam ne am na lu nekk ci suuf loo xam ne bu ñu ko jëfandikoo woon dinañ dem mais nañ koy boole ci li nga xam ne bi moom moo indi li ñuy bu li ñuy li ñuy li ñuy aar leneen li des mooy nañ bàyyi di dugal politique ci lu nekk bu ñu buggee def politique am na terrain bu ñu buggee defee di politique xas gouvernement bi li muy def gouvernement bi wax li muy def ñu wax a wax a wax bu ñu paree léegi bu ñu agsee ci élection yi ñu ñëw peuple bi ñëw foofu politique lañu fay def mais sii nga xam ne bi li nga xam ne bi mu ngi rey bis bu nekk nit ñaa ngi toog di faatu nit ñaa ngi gis li muy def ci biir dëkk bi nante boole suñu doole pour que ñu xeexandoo ko ànd ko ak gouvernement bi parce que gouvernement bi li def defu ko pour boppam da koy def parce que ñun ñoo leen mandaté suñuy serviteur la kon bu ñu demee ñoo war a aar aar alal aar suñu nekkin kon mesure bu nu jël nan ko gis ne bii mesure kat docteur yi ñoo ko wax kon nañ ci àndandoo pour jéem koo def te ñu bàyyi di ci dugal affaire politique hmm. ñu bëri nag jàpp nañ ne mesure bi président jël mooy def couvre-feu état d'urgence waaw loolu itam xam nga nit ñi dañoo def euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jaawale am na nit ñoo xam ne ñi jàmm moom bëgguñu ci dara am ñoo xam ne dañuy jël seen problème politique di ko dugal ci biir gouvernement bi lii du politique. li nga xam ne bi am ñoo xam ne naan lu tax ñu ñuy tëj euh, guddi duñu bàyyi ñuy dox bëccëg dama leen bëgg wax ne leen gis ngeen li ñu fi ñu juumee mooy dafa am nit yoo xam ne yii du ñu dox lu dul guddi bu guddee ci la ñuy tase di jël ay café te guddee ci la ñuy toog di def grand place parce que comme la ñuy toog di dugg ci ay ay yoo xam ne ay endroit de loisir doxuñu daray farata doxuñu farata dañuy toog di waxtaan di xool seen bopp di dajaloo ba bët set bu nu yewoo suba nag la ñu dal ci guddi ga bu ñu xëyee dem wàll ko yeneen nit yi ci des moo tax ñu ni leen bu guddee tee da ngeen di tëju mais bu ñu gisee yooyu yëpp état di ko jël mooy comme xamul fi ne nii lan mooy solution bi dëgg dëgg. dañuy làmbatu rek dañuy làmbatu ne nañ làmb bi bu ñu defee couvre-feu bi après danañ xool est-ce que décès yi. est-ce que cas yi dana yokk ou bien dana wàññeeku. bu ko defee ñu ajusté kon nañ xam ne mesures yooyu destiné wuñ ko benn gox. ou bien benn nit dañ koo def pour aar askan bi yépp kon loolu mën di jël rek bu ko kenn personnalisé ne lii kat ñun waa yëmbal lañ ko jagleel ou bien ñun ko lii ñun marchand ambulant yi lañ ko jabal ou bien ñii ne ñun musiciens lañ ko jabal déedéet. dañ koo def pour sauver ñëpp. Mhm. kon na ci ñëpp àndandoo. d'accord alors président itam jël na beneen dogal mooy euh, yóbbu ab projet de loi ci assemblée nationale ngir euh, assemblée googa daal di koy may bu jëlee état d'urgence couvre-feu mun kaa euh, doxal lu ëpp fukki fan ak ñaar te du jaar ci assemblée ndax luwaa bi foofa la ko tënkee ndax loola gis nga ne jaroon na ko ñu bari itam ñu ngi ciy coow. xam nga coow bala moo am solo. Mhm. muy coow boo xam bi la nit ki daf dafa méngoowul ak yoon. président de la République nekkul ci illégalité lépp loo xam ni lii gis ngeen ko mu def ko yoon moo ko may nit nag mën na cee d'accord mais bañ caa d'accord mais yoon moo ko may donc bu fekkee ne mbas mi dafa dem ba jël beneen vitesse di rey ay nit yu ëpp yu mu daan rey di contaminer lu mu daan contaminer ca ku yor réew minute bu ne ak waxtu ne boo yewoo di nga gis benn problème fan la nit ñi di xamee sa capacité mooy boo yewoo tasanteeg problème naka ngay mën a gaawee pour nga faj ko donc président de la République war nañ koo may bu problème amee ci tàng tàng bi mu daal di agir ca du dem di delluwaat ay assemblée nationale. nee na dañu gis ne lool da koy yokk pouvoir te itam xëy na ëppal mën na ci am. noo taxawal pouvoir ñu ko may foofu. Mm. du pouvoir boo xam bii dafay laal nguur gi nga xam ne bi la moom la am. du pouvoir boo xam ne bii day toog di nasaxal opposition pouvoir la boo xam bi dañ ko ne jox nañ la bi pouvoir pour que ngay gaaw di jël ay décision pour nga changer suñu nekkin dans le bon sens. ca mm. it amul liberté cent pour cent parce que moom amul droit fi ne nii jekki-jekki jël ay mesures ca waxul ak corps médical bi ko wër nit ñi dañoo defee ni président dafa libre fi ne nii ci gérer Covid bi. gisoo bis bu xëyoon benn suba. jël fi benn mesure boo xam ne waxu ko corps médical bi. ñu gis musique boobu am lu bon ci nit ñi gis nga docteur yooyu yëpp dañuy taxaw ne lii kat politicien moo ko jël ah. jëlloowuñ ko suñu yoon nekku ci. ni nii ñemewul jël benn décision boo xam ne bii corps bii nga xam ne ay sénégalais lañ yoo xam ne dañoo jàng comme ni ñëpp ngaa seen xam xam màcc. ñu maîtriser loolu ñoo ñu ñooy wax moom moo am ndogalu légitime ko ak jëfe ko. kon nañ ko comprendre noonu réew boo ci nekkee da ko xam nu muy fonctionner xam nu nit ñuy defee ca nga bañ indi say position politique ne man contre naa président Macky Sall ou bien contre naa Thierno Lo rek bu waxee dama caa war a xëpp suuf non il faut ñuy dégloonte cay xool. Mm. loolu mooy dëgëral réew président liiburul corps médical la àndal mm. ñooñu ñooy wax muy jëf ci li muy jëf pour intérêt askan wi la. Mm. ki mu ñu tasanteel aussi ennemi la boo xam ne bi kenn xamul nu mu demee dañuy tâtonner di lambatu ba kañ seet nu ñu koy jekkoo ak nag lu ci mucce mm. mais ennemi bi xamuñu ko gisuñu ko mais dafa am li koy li li li nga xam ne bi moo koy faj dañ koo am ca juróomi milliard mooy geste barrière yi ñuy def takk masque moytu nit ñi mm-hmm. taxaw fële dégg nga respecter li li docteur yi di wax mm-hmm. loolu du xaalis mm-hmm. nit ñi dañ ko war a nangu du parce que yeneen pays yi ay milliards la ñuy dépensé ñun chinois yi loo leen gis ñu man ci discipline moo leen ko may ñun nag suñu indiscipline bii moo dul jur dara lu baax te lu ñu yàqule indiscipline indiscipline moo ñu ko jox wax lu neex def lu la neex lu ñu ñu wax nga xëpp ci suuf lépp loo xam ne ñoo na doo ko xool nga jël dugal ci mbiri politique mm-hmm. alors beneen jafe-jafe bu ñu mbas mi nar a indil itam bu weesoo ci wàllu yaram mooy wàllu koom-koom koom gi daanaka euh, sonnoon na lool bi première vague bi jàllee ñu nekkoon ci résilience ak euh, tàmbale plan de relance ñaareelu vague bi ñëw dal suñu kaw euh, ngir muccal bile koom-koom lan ngay xëy na xelal sénégalais yi ak kilifa yi. Fatou économie Sénégal moom. dafa nekkoon ma sa nekk économie réew moo xam ne réew mu ndóol la. doon jéem a seet ban yoon lay jaar pour développer wu far Covid bi ñëw dal suñu kaw. kon nit ku nekk fii xam nga ne économie bi fi ne nii dafa nërmeelu léegi nag bu nërmeeloo naka lañ war a mën a def pour pour yëkkati ko xam nga ñu bari gis nañ ne Covid bi am na lu mu ñu woon woon nañu ne amuñu industrie war nañ koo defar woon nañu ne suñu agriculture bi war nañ koo defal programme industrialisation parce que industrialisation boobu mooy indi industrie nga xam ne bi ne moo ñuy jox le matériel médical mm-hmm. gis nañ ne santé bi war nañ cee gën a war nañ ko gën a jox doole gis na ni suñu médecins yi war nañ leen gën a mettre dans de bonnes conditions gis na ni war na noo gën a suñu askan aussi donc am na leçon yoo xam ni président tiré na ko ci quand parce que conseil des ministres yi di passe yëpp mu mettre l'accent sur l'agriculture loolu di lu ma neex donc ñi ngi tiré ñi gis naa ni ñi ngi bëgg a def ñeenti hôpitaux de qualité ba réhabiliter aussi hôpital Dantec hôpital kii pour que ñu nekk ay de niveau donc conséquences yi ñu ngi koy tiré bu ñuy tiire conséquence na xam ne nit ñu war a def mettre la pression sur le gouvernement pour ne ko hôpitaux yii bëgg nañ balaa 2021 di dem fenn nga taxawal ko bëgg nañ gerte agriculture bii ñu daal di gis nga def ci ay résultat loolu mooy xeex bi ñu war a xeex mooy xeex bi mooy pousse président bi ba li nga xam ne bi la wax na ko discours fin d'année bi ñu dégg ko ñun ñëpp mënoon a marche sax ci loolu pour di ko pousse pour que mu def loolu mu nekk njëriñu askan wi man débat boobu képp ku taxaw fii ci obélisque di marche pour que hôpitaux yi taxaw pour que agriculture bi dox pour que lee dox man Thierno Lo di nga ma gis fa man ak yow marche ba mu dul ànd mooy marche boo xam ne bii du njëriñu askan donc nit ñi mënoon def pression ci gouvernement bi pour que mu ja engagement yi nga xam ne bi moom la jël pour askan wi ñu jéem ko def covid bii il faut ñu boole suñu doole respecter mesures barrières yi ba ñu réussir li nga xam ne moom la ñu waxoon mooy ñu dund ak virus bi dund ak virus bi nag mooy di dem liggéey boole kook di moytu parce que nit ki bala nga naan naam ne fa boo moytuwul ba affaire bi dal la nga dem te gis na nit ñi fi ne nii tant que mi ngi dal ay nit di dal ay mbokki jàmbur duñ xam ne affaire bi am na mais affaire bi am na ngir yàlla ak yonent bi na ko nit ñi comprendre te tant que xeexuñu Covid bi économie bi du dem mm-hmm. parce que lu génn ci xaalis bi dañ ko def ci faj mi lu génn ci xaalis bi lañ ko def pour seet ki ñi nga xam ñu ngi toog seen kër mën ñoo liggéey ñu dem seddale leen ko dafa ngeen ni réew mi bu ñu toogee fii ba xam ne ñun ñëpp ñuy ay sénégalais ñu toog ba ak jël xaalis bi dem di ko seddale ay musiciens di ko seddale ay catégories te moom ay 14 million de Sénégal yoo xam ñoom ñëpp seen i impôt lan xam ngeen ne loolu du réew muy dox normal. kon àndoo ci euh, méthode boobu état jël. mais man euh, xaalis bi doon jox musiciens yi nii. am na ay gars yoo xam dañoo yor fii seen entreprise seen entreprise mi ngi tëj ñu tayle seen ay kër ñu ngi leen yóbbu di leen yóbbu tribunal fi ñu toll ni nga dem seet ay musiciens yoo xam ni na nga leen joxe xaalis sax seetoo ko man bu fekkoon ne dafa amoon benn musicien boo xam ne bii par exemple bu ñu jëlee musicien bu mel ni Youssou Ndour. Mm, am na orchestre grand bal. Ah. dafa am grand bal mm, événement boo xam daf ko daan def année bu ne. moom ak ku mel ni ay Wally Seck ak ñooñu dañoo am ay événement yu mag mag yoo xam ne daawoon nañ ko def événement yooyu bu ñu demee ba mënatuñ koo def xam nga ay manque à ñoo ñu ñooñu d'accord naa ñu jox leen mais musicien boo xam ne man gisuma la foo defee lu toll mel ni grand bal gisuma la night club booy tëggee gisuma la boîte de nuit boo nekk mais daal mas ngaa woy benn clip fii jaar na fi rek nga daal di toog. defoon buzz rek ñëw ay ca man musicien la nañ ma jox. na ku nekk tëb baykat bi ne tëb ne man damay bay bay bëgg de dee. Ah. su ma masaanu bay bu bay ba pare. Ah. damay dem di sàmmi damay ñëw di jaay ngooñ mënatuma jaay ngooñ ah. mënatuma sàmmi jox leen ma sama xaalis. Hmm. bu ku nekk defee noonu du dem gis nga Sénégal pression bi dafa bari mais lu pression bari ak lu problème métti métti nañ ko gëstu xool ñi ci am droit ñi ci amul droit buñ leen ko jox. parce que li ñuy séddale askan wee ko moom. waaw nga jox ko benn catégorie bàyyi beneen catégorie bi ca tegoo ay règle pour jox leen. parce que pression la mën naa nuru leneen ci nit ñi kumba am ndey kumba amul ndey. mais pression la. sax bu fekkee ne ku jóg def pression ñu jox la mais nit ñëpp jógandoo wàccandoo ci mbedd mi ku si nekk toog def pression. te loola jigul ah, état te loola jigul koo xam ne kenn xamul kañ la kenn xamul kañ nga masoon na woy nga nëbbutu toog ba kii bi ñëw rek xam nga loolu man ah, man Thierno Lo du ma politicien bu ragal a dénonce yu de man dëgg fu ma ko fekk dama koy wax alors fi ñu jeexalee monsieur le ministre mooy parti politique yi ak seen wàllu financement coowal Pastef gi moo yëkkatiwaat euh, woowale yaa jiite APD euh, parti la itam buy dox euh, di di di ñàkkul euh, am ay financement yu jóge ci ay militants ak ñu ni mel lan ngay euh, suggérer ngir coowal financement parti politique yi moom ñu saafara ko benn yoon ci Sénégal. financement parti politique yi problème mu Sénégal bi yëpp yu ci bari Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dañoo réfléchir ci lu bari. Mm. suñu démocratie bi dañ ko encadré ba def ci yu bari. Mm. mais problème Sénégal du ci politique bi kese dañuy voter ay textes. yoo xam ni duñ ko duñ ko duñ ko appliqué boo ko defee mu mel ni dafa mel ni ab vide te du vide yii ngeen di gis yépp Sénégal def nañ ci ay texte financement des parti politiques bu nu nee parti politique bu nekk am nga droit di jël ay cotisation ci say militants léegi mais bu at bi jeexee war ngaa joxe un bilan financier bilan financier xam nga du nga jël fii rek di bind ay chiffres rek yooyu jox ko ministre de l'intérieur soo ko joxee dana xool somme boo ci bind ñu xool traçabilité bi ak fan nga ko jëlee ba xam légal na te ils sont très experts Sénégal moom boo fi jëlee fii fiscalistes yeeg experts yeeg yooyu ñoo gën a fort fii foofu tegee bilan financier buñ ko décortiquer buñ paree danañ xool traçabilité boo ñu defee loo ci war a def bu ñu la bëggee jàpp danañ la jàpp kon donc jarul woon coow dañu war a bàyyi waa Pastef buñ nee ñoom seeni militants ñoo leen ko jox nan noppi ba ñu déposé seen bilan ñu laaj leen ñu xool traçabilité. kon ministre bi wax ji mu wax yëpp jaru ko woon. ministre de bu ko neexee. Mm. mu gis ci contexte bi comme ni ñu ko expliqué. Mm. ne contexte bi ñu fa ñoo bëgg am pétrole am na ay forces obscures yu nekk ci biti bu ñuy joxe xaalis moo tax ñu war a contrôler. moo mu artu ñoom mu daal di artu. ne am na article tel boo xam ne bii mooy wax ci financement parti politique yi ku ko respecté wul danañ la dissoudre mais loolu ma loolu du ma yëngal. man su dafa dafa menacé tamit. non non loolu du menace rappel la. Ah. man dama koy considéré comme rappel man daal en tout cas comme sama xaalis man xam naa fi ma ko jëlee. Ah. ca xam naa ne boo ko xoolee danaa ko mën a justifier man loolu nga wax dama naan concerné wu. concerné wu damay xaal ba nga dikk ne ma kaay ma dikk ne la sama yëfa ngi nii jàpp sama njàmbur donc et puis li ci gën a malheureux mooy bi président defee discours am bu rafet boobu. tasanteeg sa mbokk taskatu xibaar yi ñu wax fa ay problème mu Sénégal bi ñu xëyee ci loolu lañu waroon a sukkandiku pour xool naka la ñuy defar Covid bi mais ñu jekki-jekki na ko fa ñukk nekk fii di wax ay problème finance naag financé woo fii laa ko jëlee fële laa ko d'abord majorité bi ñoom ñoo gën a perte seen temps ci loolu parce que ñoom ñoo waroon a continuer di waxtaan ci réponse yi président wax jëmale ko ci askan wi nga xam ne mooy la meilleure façon de communiquer mooy faj problème mu askan wi au lieu que ñu toog ci loolu ñu nekk fee topp di wax ay Sonko jàppal Pastef jàppal bàyyil Pastef mais loolu ñoom rek ñoo ciy perte. est-ce tamit ministre bi moo créé coow li yëpp. ministre bi dafa toog am na droit bu toogee xelam. ñu wax benn ci ci benn benn fan. xam nga xam nga ministre bi li ko tax a réagir xam nga lan la nga jékki-jékki ni ndóol mi amee Sénégal nga jékki-jékki dégg benn parti bu wax ni dajale na xawma lan presque deux cent et quelques millions ci bopp ministre bi et c'est normal que le ministre puisse réagir comme ça parce que loolu ku réagir noonu xam naa ni yaa ngi def benn vigilance nga daan ne ah lii kat mën na mën mën na demee nii mm. kon naa rappelé ni lii ak lii ak lii mais loolu wax ko taxul mu deme noonu taxul waa Pastef enfreint de taxe yi mais moom dafa def rôle nañ nangul ku nekk rôle am ca appliquer taxe yi ca it ma wax la faatu benn affaire rapidement gis nga affaire financement parti les partis de gauche la mais fii lañ nekkoon les président africains yi ki nekkoon ay hommes de gauche comme ñoom di leen financer fii nit ñëpp di ko gis dégg nga ay AJ/PADS ak PAYTEC Kilgo yëpp ba pare l'international libéral day financer les parti euh, libéraux. waaw foofu nag état dafa wane faiblesse. ndax ndax l'international socialiste ndax le parti socialiste. ndax état financier yooyu état moo waroon veiller. à que parti bu nekk di ko joxe. dama laa bëgg a wax ne la mhm. lii ma lay wax c'est pour tout le monde. et puis les mallettes d'argent là yii dem ku ko mën a contrôler ti fii ci biir Sénégal da ngay toog fi am na gars yoo xam ne par exemple bu élection jotee fi ñu toll nii mais dañoo yor seen ay milliards dañuy dem fekk candidat yépp ñu sotti fii sotti fii sotti fii sotti fii de la même manière ñi nekk ci bitim réew bu élection jotee ci li ñuy ñëw jël seen ay bii di ko jox ay candidat pour que bu candidat yi dëkkee fi jàppale leen jox leen fi ay marché ak affaire yooyu yëpp gis nga politiciens yi nañu bàyyi seen jeu bii di naxaate ak di wax léegi nag comme ñoom ñëpp noonu la ñuy def parce que que benn parti politique boo fi jox xaalis mën na jëluma ko amu fii li ma a def na mooy ministre de l'intérieur bi nga xam ne bi la moom lañ jox suñu charge nekk na nga ñu traquer ñooñu ba boo toog na nga fexe ba jàpp leen ak suñu justice bi ñooñu ñoo war a jouer seeni rôle ñëpp di déposer état financier ñëpp déposer état financier bu ñu jëmee ci élection ak fu ñu toll nañu gëstu ku ci nekk naka ngay doxalee ak boo defee manifestation nooy def muy benn beneen business mooy Sénégal dañoo contrôlé wul yenn affaires yi comment se fait-il toog gis benn doomu aadama taxaw ci kaw ab estrade jàpp ay ay ay millions di ko di ko sànni. di baatare jël xaalis bi di naan day baatare. nga toog jékki-jékki gis un fonctionnaire. Mm-hmm. directeur d'une société publique. nga gis ko mu joxe ay 20 millions ay 10 millions di ko jox ay association ak ay affaire mais bu fekkoon ne doon nañ contrôler foo ko def ñu woo la ne kaay. 10 millions yi foo ko jëlee. Mm. yow li nga doon baatare fële foo ko jëlee. Mm. mais di nga daal di constater nii di contrôler ba nit ñi dootuñu def li ñu mën a def. mais on laisse beaucoup de choses se faire on laisse l'argent circuler de façon facile du n'importe quoi mooy manque d'application des textes la. parce que fii xamoon nga fi amoon na fa benn loi boo xam bi bu doon def les cérémonies la. Mm-hmm. yépp mi ngi fi. amul dara lu ci nit yi. Mm-hmm. c'est comme par exemple fi mu ne nii boo xoolee affaire taximan Sénégal. les la xam nga ay taxi mais taxi bu nekk pour nga nekk jeune noonu ñooñu taxi nga mais dangaa war a am agrément war a am compteur war a am lu nekk mais est-ce que da ngaa mës a dégg benn loi bu ñu wootee assemblée nationale pour dire que taxi jaune noir yi waratuñoo am compteur waratuñoo am agrément ak système da waxaale la xanaa ay te léegi banañ ko ci nii nii daw romb policiers yi <laughs> duñ leen arrêté ne leen ana sa agrément ah. ana sa compteur mais est que réew mën na fonctionner noonu laisser-aller total daal laisser-aller total ba pare bu ñu toog ak di sepp par benn di def ngay gis nii est-ce que yaa ngi dégg ñu affaire pour transport est-ce que da leen déggati fii ne ñuy xool âge yu ñuy dawal oto yi da leen déggati fii ne ñuy wax naan permis ñu ñu ñu yóbbu sa permis commission déggatoo ko déggatoo ko. kon daal état moo seetaan ci gàttal waaye seetaan lañ def ci nga seetaan bi ñu def moo indi désordre bi am ci réew waxtaan wi gën a wéy waaye waxtu wee jeex tàkk amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay PCA bu SENTER jiite itam APD jërëjëf. maa ngi lay bu baax gis nga yi ma doon abati émission spéciale la waroon doon soo gis euh, benn émission spéciale bi ñu def ko